ci bi xumbul lool ci jamono ji nga xamante ni nii ñu ngi ci wàccaayu lii di feetum korité njënd meeg njaay mi di fi dox lool ci jamono ji ñu faral di ko nemmeeku bisub korité bu ne ay njaboot yu bari faral di togg laax fonde wala sax yi ngir rek ñu daal di koy def ndékki loole nag mel ni tradition la ko ñenn ñi daal di def. waaw korité bi de moom dañuy faral di si togg laax xam nga loolu temps cosaan la ba léegi. dangay korité su jotee dangay ñëw wollu ngeen togg laax avant su ñu julli jee ba ñëw rek ngeen lekk laax bi door a jublu si añ yi. korité moom ba damay préparé wu rek defar laax rek ndax laax moom dugub moom lu baax la ci yaram waaw loolu moo tax. xam nga jour korité bi loolu la ñuy far def togg laax si suba si pour ñu lekkee ko waaw bu paasee moom mur la ñuy kii. comme korité la rek ñëpp loolu la ñuy def ñun tamit loolu la kii. suñu sukkandikoo ci ñoom ñu lee jamono ji lépp a ngi dox clients yi ñoo ngi ñëw bu baax a baax. dugub ji moom dëgg yàlla mi ngi dox ci koor mi ngi dox daal waaw. ñëw ko jënd am na xam ne dañuy génn ay muuri yu mel noonu lenn rek lañ fi nemmeeku ci jafe-jafe njëg li dafa cher lool. waaw cher na moom cher na trop sax. ndax moom dugub bu demee bay jaar kilo 600 waxatuñu wol bi yer na moom torop sax. àdduna bi di amal feetu korité ci 10 mars bii feetu korité bii di màndargal njeexu telu lii di weeru koor.